jamono bi dama koy wax sànq léegi autorité yii fi ñëw ca loolu sax may nuyu président de la république ak ministère yi nga xam ne yëpp yabal si leen fi ñëw nañu fi def délégation yu mag waaye léegi la fi préfet ba gouverneur bi jóge seen délégation CRD bi may leen nit ñi fi mu ne koo gis aw xal la booy ëf rek muy ferñeent ba tax na nag fi mu ne moo xam commissaire nga moo xam procureur nga moo xam commandant nga bu ñu demee tamit ci nit ñi benn benn benn benn defin wi ndax lu tuuti rek dina leen rey ndax dañoo xajootul dara nit ñi fi ne dañoo fees denn lu tuuti rek mën naa gaañ doomu aadama kon ñoom enquête bi ñu daan def tuuti sax mu xaw a ci collaboration rek liñ bëgg lépp mën nañ koo am te bi bu na amul rek lépp dina tege ci yoon waaye nit ñi ma gis ay xott yuy dox la dafa am benn benn góor dafa ñëw fii fekk may may wax yamar ne ko yóbbul oto bi ñu def ko entretien góor gi ne ma luy entretien ma ne ko oto bi bu demee ab diir lu yóbbu nag tàgg tàgg ko soppi huile bi ci biir sax dafa am lu mel ni cartouche la ñu roppi yooyu dugal yu yees bu ko defee ñu tàggat ko mu ne ma man sëñ bi lii ma jàpp man aw ma entretien <laughs> baax lekk léegi da lekk pour dëgërlu waaye lekkatoo pour léegi lekk yëpp dañu ko yëpp dañu ko qualité nekkatu ci barke nekkatu ci te ma nga tàmbalee rek la ko siibi ca tool yi alali jàmbur fëkk nga ji ci bëgg bay ci mu barke nit ñi lekk ci am aw yaram daal sant yàlla du dox mukk amul fenn dara ci liwut ñi nga xam lewal nañ seen ñaq di ci liggéey mu tuuti mu néew mu bari da leen di regg ba des fa da leen di regg ba des fa ndax barke ma nga ca dëkk boo xam ne ñu nekk jàmm mooy li jafe pétrole sax jafetul dañu ko daan dégg waaye léegi pétrole jafetul gaz jafetul mbubb mu baax jafetul piis yi boo demee nii ci dëkk bi marché mu sant gi foo dem ci dëkk bi ay dañ lay peese ñenn ñi sax léegi ah kon naa bàyyi noonu rek kon nag dañoo nekk ci réew moo xam ni dafa laaj ñuy wax jàmm di dox jàmm di def jàmm